xibaar yi ñoo ngi ciy ànd ak groupe Canal Plus Canal Plus nag lépp lu xeetoog tàggat yaram ñoo ci mën rawatina football kon ko amagul seenub décodeur li ñu lay ñaan moo di nga dem wuti ko ki ko am te abonné wul woon tamit na dem léegi wuti ko ndax Coupe d'Afrique bi ñuy dund jamono jii du fenn fudul ci groupe Canal Plus. Bonjour, c'est Lilian Gatoun en direct du plus grand rendez-vous du football africain. Chez Canal+, on est tous prêts avec la nouvelle chaîne Canal+ Cannes. Un dispositif exceptionnel, tous les matchs de la compétition en direct et en HD, tous les experts Canal Plus et des émissions spéciales, je vous promets, on va tout donner. ak Canal Plus dinañ joxe lépp ci kaan bi match yëpp ak experts yi 24 heures sur 24 loolu yëpp ci chaîne bi di Canal Plus kaan ba sa lëf ci sa décodeur am bépp xibaar ci kaan bi kon réabonné wu leen gaaw ngir dund kaan bi yëpp profito ci tout Canal Plus nga xam ne dañ la koy may ci diiru fukki fan ak juróom. ñu door journal de la CAN bi maanaam xibaar yi nga xam ne Coupe d'Afrique bi lañu ko jagleel dooree ko ci équipe nationale bu Sénégal ginnaaw bi ñu leen éliminé ci Coupe d'Afrique bi nag démb lañu ñu yegsi ci réew mi bi ci guddi la ñu yegsi muy joueur yi ak délégation bi yépp yegsi nañu nag ci jàmm nañu dolli sant ndax dañoo wuti woon kat amuñu ndax kuy wut yaay ñàkk Coupe d'Afrique bi weesu ñoo ko jëloon mu neex lool yéene bi ñu amoon ak bëgg-bëgg bi nag moo doon yenu raaya bi indi ko waaye loole yàlla dogalu ko nañu leen ñaanal nag ñuy wéy di nekk ci jàmm ndax Coupe d'Afrique bi ci topp benn at ak genn wàll képp moo ci des di amee ci riwu Maroc ci atum deux mille vingt cinq kon nañu ñaanal gone yi ñu nekk ci jàmm mën a dem ca Coupe d'Afrique boobee wuti waat te ñaan nag boobee ñëw ci réew mi ndax loolee lu mën a nekk la kon ñoo ngi njukkal gaynde yépp ak staff bi nga xam ne demoon nañu ci réewu Côte d'Ivoire wuti waaye yàlla dogal ñu teel a toog bu dee Aliou Cissé mi ñuy tàggat moom def na juróom at ci bopp équipe nationale bu Sénégal maanaam neuf ans waaye kat bu ñu sukkandikoo ci Malang Sané jamono jikat mën nañoo wax ni ànd bi léegi mu jeex ndax Aliou Cissé ndogal li mu bëgg jël moo di tekki ay ndombo tànkam ginnaaw ñibbisi na ci réew mi li mu bëgg moo di waxtaan ak ñi ko jege xam le ne moom bàyyi na équipe nationale bi Aliou nag waxagut jëlagut benn ndogal Malang ne nekk journaliste moo am njortu boobu képp wax ko waaye li ci kanam rawuli gët dina tekki ay ndombo tànkam am day toog ci équipe nationale bi doxal loole ci sunu kanam la nekk waaye dara du leen ci ump incha allah. Aliou Cissé moomee sax su fekkee jugee ci bopp équipe nationale bi sénégalais yu bari li ñu bëgg moo di Habib Beye mi ñëw wuutu ko foofee doxal waaye loolee nag mën naa bañ a yomb ci waa fédération bi li ko moo di jamono ji Habib Beye ma nga ca troisième division bu France club bu ñu naan Red Star te ma fay doxal jamono ji moo jël pee bëgg-bëgg bi mu am moo di club boobee mu yóbbu ko ci deuxième division bu France li ko waral moo di Lyon bi ñu dàqee ki leen doon tàggat woo nañu ko ngir mu dem tàggat leen ca Ligue 1 ba waaye kat doomu Sénégal bi dafa gantaloon xamle woon ne moom ca Red Star googe li mu bëgg moo di def fa ay jaloore kon nag su fekkee Aliou Cissé jugee ko na fi équipe nationale bu Sénégal fédération bi bëgg moom mii di Habib Beye tàggat leen loolee mën naa bañ a yomb li ko waral moo di lim bëgg moo di def jaloore foofee ca Red Star waaye mën naa bañ a jafe tamit ndax moom mii kat bëgg na Sénégal suy ñëw daal bëgg gu bëgg Sénégal képp moo ko mën a indi waaye du doon leneen muy Habib Beye waaye mbir moomee nag dara officiel la gu ci loolee dinañ leen ko toppal incha allah équipe national bu Sénégal. boobee sax bëri wut lu muy dem cib Coupe d'Afrique pays organisateur ba mu jàkkaarloo ak moom am ndam ci kawam loolee gëj naa am ndax ci atum 2000 Nigeria moo ko organisé woon bi ñu jàkkaarloo ak moom ñaari bal ci benn la ñu gagné atum 2004 Tunisie moo daloo woon Coupe d'Afrique bi bi Sénégal di tase ak moom 2-1 la ko Tunisie dooroon atum 2006 Égypte moo ko daloo woon Égypte daf ñu gañe woon ñaari bal ci benn atum 2012 Guinée équatoriale moo ko daloo woon ñu tase ak moom mu gañe ñu ñaari bal ci benn mille 2023 bi ñuy jongante jamono jiite di ko jongante ci atum deux mille 2024 bu yàggul dara muy bërki démb jàkkaarloo nañu ak Côte d'Ivoire mënuñu koo gañe match bi 1-1 la jeexee ñu dem ca tir au but Côte dugal juróom Sénégal dugal ñeent kon nag Sénégal bariwul lu muy gañe pays organisateur mu soxal Coupe d'Afrique ñu jugee ci équipe nationale bu Sénégal waaye Coupe d'Afrique bi moom duñu ko génn gum ndax journal de la CAN bi ci la ñu nekk coupe d'Afrique bi weesu nag réew yi demoon ba quart de finale réew yooyee yépp toog nañu at mi ñu nekk benn réew yeggut ca quart de finale ya ndax Burkina Faso toog na Tunisie toog na Sénégal toog na Guinée équatoriale toog na Cameroun toog na Gambie toog na Égypte toog na Maroc toog démb kon équipe yooyee nga xam ne demoon nañu ca quart de finale ya coupe d'Afrique bii weesu coupe d'Afrique bii ñu nekk duñu ca yegg ndax ñoom ñépp toog nañu ñu jugee ci équipe yooye demoon ca quart de finale yeeg coupe d'Afrique bii weesu te ren yegguñu ca dem ca équipe nationale bu Afrique du Sud ñoom nag gaañi duñ leen di bàyyi xel waaye équipe bu baax la ñu yor ku ñu ne Afrique du Sud ngay jàkkaar lool doo ko bàyyi xel waaye équipe bu baax la ñu am ay gone yu mën a football loole li koy firndeel moo di fukki match ak juróom-ñett yi ñu mujj a jongante muy dix-huit match yi ñu mujj a jongante ñaari defet képp la ñu ca am te match yooyee nag am nañu ca ñaari victoire ci kaw Maroc mi ñu génne ci pomi démb Maroc googee sax ci lu matul at wala ci benn at ci la ko Afrique du Sud gagné ñaari yoon démb la mujj am ñoo leen génne ci Coupe d'Afrique bi jamono ji nag ñoo ngi amal ay jaloore muy équipe national bu Afrique du Sud ñu leen di wax les Bafana Bafana ñu jugee ci équipe national bu Afrique du Sud dem ca waa Maroc mi ñu teg gàcce démb rawatina ki leen di tàggat di Walid Regragui moom nag xam ngeen ne demoon na ca Coupe du monde ba def coupe monde bu baax waaye coupe du monde boobee ba mu jeexee li mu xamle woon moom Walid Regragui moo di équipe nationale bu Maroc mi ngi waajal coupe d'Afrique bi coupe d'Afrique boobee nag ñun waa Maroc bu ñu yeggul ci demi-finale ya man damay tekki sama ndomba tànk ndax loole échec bu mag la maanaam lajj gu mag la loolee nag journaliste yi fàttali nañu ko ko démb ne ko yaa fi waxoon ni équipe nationale bu Maroc bu ñu demee ca coupe d'Afrique ba te yegguñu ca demi-finale ba loolee lajj gu mag la amut ngay démissionné mu ne loolu de maa ko waxoon te maa ngi ci ba léegi su ma yeggee ci réewu Maroc dinaa toog ak waa fédération bi waxtaan ak ñoom li ma waxoon lépp ma waxaat ko te noppi naa ngir tekki samay ndombo tànk loolee la Walid Reug Reug xamle waaye mbir moomee dinañ leen ko toppal dara du leen ci ump incha allah ñu jugee ci walit ragragi ak i kàddoom jox leen programme yi war a am vendredi ak samedi Sénégal nag toog na waaye Coupe d'Afrique boobee day wëy le deux nag la ñuy amal ñaari match yi njëkk a am soxal quart de finale yooyee Nigeria war na jàkkaarloo ak Angola